yi seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu dikkaat nañu di sof ak yéen mooy suñ tafsir alquran démb dañuy wax ñëwoon ci bi yàlla nammee sos mbindeef yi mu ne malaaka yi damay wuut koo xam ne damay bind koo xam ne dama dama koy wuutal ci kaw suuf mu fay atte ci kaw suuf malaaka yi jaru ne ko jaru ko ndax ñun ñu ngi nekk ci service guddeeg bëccëg ñu ngi lay jaamu duñ la moy xam ngeen malaaka yi ñoom la yaas laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun laa yaakuluuna wala yashrabuun ñoom ci ndigal yàlla la ñu nekk guddeeg bëccëg moo tax ñu neen yàlla jarul ngay indi ay nit di leen indi ci ci kaw suuf su ko defee ñu nekk foofu di tooñante di reyante du tuur di ret di la mooy yàlla ne inni alam ma la taalamuun xam naa li ngeen xamul su ko defee foofu la ñu tàmbali tey yàlla ne wa qaala taala inni alam ma la taalamuun xam naa li ngeen xamul wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla xamal ne xamal na aadama al asla asmaa mooy asmaa al musammayaat yëf yoo xam ne yu ñu tudd ci li nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci àddina yàlla xamal ko aadama am na ñu wax ne euh, du loolu la xamal aadama def ko xamal asmaullahil husna ala kulli xaalin xamal na ko laa daal loo xam ne malaaka yi xamuñu ko mu ne suma aaraduhum alal malaaikatu mu daal di exposé loolu nag alal malaaika ci malaaka yi mu gaaral ko ci malaaka yi fa qaal mu ne anbi'uni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin su fekkee ne xam ngeen li ngeen wax dëgg dëgg la dama bëgg ngeen expliquer ma musammayaat yi mooy tur yi nan lañu tudd fa tabaarakallaahu léegi euh, malaaka yi qaalu ñu daal wax subhaanak sell ñeel na la laa ilma lanaa ñun kay amuñu xam-xam laa ilma deet xam-xam lanaa di ñeel ñu illaa maa allamtanaa lu dul loo ñu xamal innaka yow ant ant yow taakid la al alimu yow aji xam alxakimu kii teral atte fi mu yàlla tëdd qaala taala yàlla ne yaa aadamu yow aadamu anbiuhum bi asmaihim sam tuddal leen seen tur yi nga xam ne lott nañ ci xam ko fa lamma ambaahum mi nga xamee ne aadama xibaar na leen wax na leen tur yépp mu tudd leen ba ñu xam ne lii lii la tudd lii la lii la tudd ah qaal mu alam aqul lakum yàlla ne leen alam aqul lakum inni alam xayba samawati wal ard waxuma leen woon ndax waxuma leen woon man yàlla xam naa lu faddu ci asmaan yi juróom-ñaar wal ard ak suuf yi juróom-ñaar maa xaab fihima ak lépp loo xam ne faddu ci asmaan yi ak juróom juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar wa alamu xam man yàlla maa tubduuna lépp loo xam ne yéen a ngi koy feeñal min ci seeni wax wa maa kuntum ak lépp loo xam ne taktumuun yéen a ngi koy nëbb waskur na nga fàttaliku is naa jamono ji nga xam ne wax nañu lil malaaykati ñeel malaaka yi isjudu da ngeen sujuudal li aadama ñeel aadama li ko waral koo xam ne dafa la xamal li nga xamul woon wax dëgg yàlla mooy sa sëriñ yàlla nee na nag comme que xamal na leen li ngeen xamul woon kon mooy seen professeur mooy seen njiit kon noo nu ngeen di def na ngeen ko tóojal na ngeen ko sujuudal sujuud bi nag du sujuud boo xam ne danga jël sa jë teg ko ci suuf déedéet kooku yàlla rek ko yee amul kenn koo xam ne yeyoo nga ñu sujuudal la lu dul borom bi subhaanahu wa taala waaye da ngeen koy defal ni ñuy defal militaire yi walla ni ñuy defal léeg-léeg karatéka yi dañuy de su suju sëgg rek ñu defal ko aadam fa sajadu ñoom ñépp bi leen ko yàlla waxee ñoom ñépp ñu sujuud illa iblis ndare iblis aba moom bañ na moom iblis imtana amina sujuud lànk na neen du sujuudal aadam wastakbar mu sakku réy réyru waqaala mu daal di wax yàlla li tax duma ko sujuudal ana xayrun minhu man maa ko gën gis nga léegi rëy rëylu la njëkk la ñu njëkk moye yàlla ci kaw suuf wa qaalat moom nekk na moom euh, iblis min alkaafirina bokk ci way yéeféer yi fi ilmillaahi ci xam-xamu yàlla yàlla dogaloon na ko bu yàgg wa qul naa ñu daal wax yaa aadamu yow aadamu askun yaa aadama uskun dëkkal anta yow taakid la wa zawjuka ak sa soxna aljanat aljannata na ngeen dëkk aljanna walla jardin la wa kula ngeen lekk minha ci aljanna raxadan ci yaatu amul fenn foo xam ne tere nañ leen xay su siituma fu mu leen soob waaye nag wala taqraba bu leen jege xaasi shajarat garab gii bu leen ko laal lekk leen li nekk ci àjjan ngeen naan lu leen neex waaye bu leen laal garab gi su ngeen ko laale fa takuuna ngeen lekk fa takuuna ngeen nekk eh, min azaalimiina bokk ci way tooñ ñi nga xam ne dañoo mooy seen borom fa azallahuma daal di laan ter tarxislu a cheytaan cheytaan anha ci garab ga anha ci àjjan fa axrajahuma mu génne leen mimma fii fiihi ci li xéewal gi ñu nekke woon ci àjjana mu fexe ba génne leen ko kon iblis mooy suñu noon bu jëkk moo mooy mooy mooy noon suñu maam aadama moo ñu topp bi léegi te ëpp doole mag ñu fuuf kon da ngay wax ne képp koo xam ne iblis gañe na la gañee bu la yàllaa tax yàlla rek a ci jàpp waaye su dul loolu moo la ëpp doole gën la fi yàgg ëpp la ay at tasee na ak ay yonent tasee na ay ay saab tase na ak ay waliyu ñoom ñépp tasee na ak ñoom te boobu ba mu ngi mu ngi fi ñoom dem nañu te moom mu ngi fi waqul naa wax nañu ñun yàlla ihbitu wàcc leen ilaal ard jëm ci suuf antuma yéen ñaar ak li ngeen xam ne li ngeen di làmbo li ngeen làmbo ci ay njaboot ëllëg baadukum ñenn ci yéen li baadin ñeel ñenn ñi àddu woon di ngeen nekk ci àddina di noonante walakum ñeel na leen fil ard ci suuf mustaqarrun saxuwaay wa mataaun ak xéewal ilaa xiinin ba seen àpp jot fa talaqa daal gàttandu aadamu yonent yàlla aadam mi rabbihi tukkee ci boroomam kalimaatin ay baat yoo xam ne yàlla ko ko sax muy rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna min alxaasiriin mu ne rabbana suñu borom zalam naa ñu dee tooñ nañu am fusanaa suñu bopp fataaba yi yàlla nangu tuuba aleyhi ci ñoom walla ci moom innahu moom yàlla huwa tawaabu mooy nangu ka nangu mooy nangu tuub arrahim mooy aji yërëm bihim ci ñoom qul naa wax nañu ñun yàlla ihbitu wàcc leen minha ci ajan comme que mooy ngeen yàlla ci ajan ihbitu minha jamian na ngeen wàcc ci àjjan yéen ñépp fa imma yaatiyannakum su leen dikkalee min nii tukkee ci man xudan mooy téere boo xam ne wala rasul yonent boo xam ne maa ko yónni bu boobaa fa man tabiat képp koo xam ne topp na xudaa sama njub fa aamana bi mu gëmm wa amila bi taati mu topp sama samay ndigal fala xawfun déet ragal aleyhim ci ñoom wala hum déet ñoom yaxzanuuna ñuy jàq fil axira ci alaaxira walladina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu wa kazabu weddi nañu bi suñu aaye mooy suñu téere ulaayika ñooñu asxaabu naari ñooy ñooñu safar hum ñoom fiihaa ci safara xaaliduuna la ñuy sax lañuy ñuy béel yaa bani israila yéen ñi yéen ñi اذكروا اسرائيل نقصو دغي بني اسرائيل موي ذريه يعقوب يا بني اسرائيل بني اسرائيل اذكروا نانين فاتليكو نعمتي سما خيوال التي بيغا خمنه انعمت خيوال نك عليكم تي واوفوا نانين متال بعهدي سما كولري وفي من متم متال بعهدكم تي سين كولري واياي تي من فرحبون نانين ما راغال بولين راغال كين راغال لين ما يمان يال وامنون نانين گم bi maa ci la nga xam ne anzaltu wàcce naa ko mooy alquran musaddiqan téere boo xam ne aji dëggal la li maa ci li nga xam ne ma akum nekk ànd na ak yéen mina tawreet ci téere yi nga xam ne yàlla wàccee na leen wala takunu bu leen nekk awwala kaafirin njalbeen ñu wej di bu leen watti bi aayatillaahi wal bi aayaati ci sama aaye fi kitaabikum ci seen téere min naati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko nëbb melo yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ci tawreet mu ngi ci linjiil bu leen ko nëbb samanan ngir ngeen watti ko samanan njëg qalilan bu néew am lu leen jox wala liñ leen dig wala bëggug e, daraje bu mu tax ngeen watti sama aaya yi wala ngeen nëbb melokaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne soo leen joxee alal dañuy jaay seen ngor dañuy jaay seen diine loolu am na ba ci suñu réew mi am na fa tabarakallahu nit dafa war a dëggu nit dafa war a gore nit dafa war a diiñ ci lépp li muy wax ak li muy jëf waaw suñu maam borom Tuubaa dafa wax ne waylun liman ilan nasaara maala li kay yanaale miknatan aw maala waylun mbugal ñeel na liman ñi nga xam ne maala jeng nañu ilan nasaara jëm ci nasaara yi li kay yanaale ngir ñu am miknatan daraja aw maala wala alal ñooñ mbugal mbugal ñeel na leen am na ñoo xam ne alal jaral na leen lu ne wal iyaazu billaahi wala talbisu bu leen jaxase alxaq dëgg bil baatili ci neen wala taktumu bu leen nëbb alxaq dëgg mooy naatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te waa antum yéen taalamuuna aji xam ngeen annahu moom yoon bi sallallahu alayhi wa sallam xaqun dëgg la ann alquran xaqun dëgg la wa aqimu na ngeen saxal asalaata julli wa aatu na ngeen joxe azakaata azaka warka'u na ngeen julli ma arraakiina ànd ak way julli yi wa nazala ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقرابهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق أمنا تي سابا يو خمني دن دون وخني سين بورم خم خمي كوميلني عبد الله بن سلام دفا دون وخني سين بورم خم خمي وكونوا وكانوا نكون لن يقولون لأقرابهم دن دون وخ سين بوك جولتي اثبتوا على دين محمد فإنه حق nangeen sax ci diine muhammad ndax diine jooju mooy diine dégg yàlla nee na ataamuruuna naasa bil birri ndax da digal nit ñi bil birri ci liimaan bil birri ci gëm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ismun jaamiun li kulli xayri mbo mbo baat boo xam ne dafa boole bépp yiw moom mooy al birr wane ataamuruuna naas ndax da di digal nit ñi albirra yiw topp yonent bi sallallahu alayhi wa ak gëm yàlla gëm alquran wa tansaw na ngeen bàyyi am anfusakum seen bopp ah, loolu moom jaaduwul wa antum yéen tatluuna yéen a ngi jàng alkitaaba tawréet wa fiihaa nekk na ci tawréet alwaid ay tëkku ala mu ala mu ala muxaalafati alqawli al amal ki nga xam ne dafa wuute jëfam dafa wuuteeg waxam yàlla mu ngi koy tëkku afala na xanaa du ngeen xelu am xel ngeen dellu ci yàlla wastainu na ngeen dimbandiku bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wasalaati ci ak julli wa innaha julli la kabiratun lu diis la illaa alal xaasiin julli mbir moo xam ne lu diis la ci koo xam ne gëmul suy dem ci julli wàccaay bi dafay mel ne ku ñuy bëgg a rey ndax tayal ndax ñàkk eh, ñàkk am xorma ci julli da koy julli noonu rek waaye du du du am amuur du am loo xam ne euh, ndigal la da am loo xam ne euh, cawarte mooy ñi nga xam ne euh, julli fu mu leen fekk rek nu mu leen fekkee rek noonu lañ koy def loolu mooy adaa u salaat wa du ay lii mooy iqaami salaat saxal julli adaa u salaat ak joxe julli du benn ñi nga xam ne dañuy saxal julli mooy ñi nga xam ne waxtu ab ginnaaw euh, diggante waxtu ak waxtu danañ ko préparer préparation ba pare danañu dem jàpp dootuñu laa lépp loo xam ne dafay yàq seen jàpp walla di ko wax ba waa beneen waxtu ñëw loolu mooy iqaami salaat saxal julli lépp loo xam ne euh, lu nekk ci yiw walla li nekk ci ay farata walla li koy yàq danañ koy moytu kon julli diis na illaa alal xaashiin nare li ñu way ragal yàlla yi ñooñ de suñ jógee dem ci julli dañ ci sawar dañ ci am cofeel ci julli allazina ñooy gaa yi nga xam ne yazunnuuna ñoom wóolu nañu annahum ñoom de mulaaqu dinañ daje rabbuhum seen borom bil baasi ci bésub dëkk bi waa annahum ñoom raajiuuna way dellu lañu ilayhi jëm ci yàlla fil aaxirati ci alaaxira fa yujaazihim mu fay leen amaaluhum seen jëf yaa bani israil yàlla neen yee yéen bani israil uzkuru na ngeen fàttaliku nicmati sama xéewal allati bi nga xam ne an amtu xéewal na aleykum ci yéen bi shukri alayha bi taati wa ana man wa anni man faddaltukum gënal naa leen alal aalamin ci seen niti jamono wattaqu na ngeen ragal yow man bés boo xam ne laa tajzi du jëñ du jëri nafsun bakkan an nafsin ci benn bàkkan shay an ci dara bi mu koy indi sax da ko indi siixatu nakre laa yaji laa tajzi nafsun an nafsin shay an benn bàkkan du jëriñ morom ma dara wala yuqbalu deful nangu minha ci alaxira shafaatun ràmm wala yuxasu du ñu nangu minha ci loolu adulun jotu doo neexal yàlla ba mu jël ko doo ràmm ba yàlla nangu ko lu dul kii yàlla illa man azina lahu rahmaan lu dul koo xam ne yàlla moo ko wax jógal ràmmu jaam yi ma ma nangul la wala hum déet ñoo yunsaruuna ñu leen dimbali ba jiñal leen mbugalum yàlla yàlla ne waskuru na ngeen fàttaliku is najaynaakum bi ma leen musalee min aali firawna ci ñooñu firawna firawna ay buxaabam yi waxoon nañ ko dina am benn xale bu juddu ci bani israil moo nar folli ci sa ngu nguur mu ne ko kon xam nu may def damay jël bani israil xale bu góor bu fa juddu ma rey ko ku euh, euh, jigéen bu fa juddu ma bàyyi ko mu commencé di rey commencé di rey commencé di rey ba am ay junni ay junni léegi ñu ñëw ci Firawna ne ko soo toppee rey gi population dootoo am armée parce que nit ñi dañuy jeex ñu néew doole nous nguur beneen nguur dale suñu kaw daf ñuy gañe ndax duñu am ay militaire am ni def at bi ku ci euh, lay ma rey ma commencé dama koy dogal rey na ci ñoom lu bari mais bi nga xamee ne borom bi subhaanahu wa taala moom mooy xarañ moom mooy wattu jaamam gis nga at mi nga xam ne ci la ñuy rey ci lay ci lay rey ci la yonent yàlla Muusa judd mu na ko bàyyi mu juddu ci at mi nga xam ne du rey waaye dafa ci at mi muy rey ci la yàlla Muusa judd leen wa iz anjaynaakum bi ma leen musalee min aali na ci ñooñu firawna yasumuunakum mu ngi leen doon togg suu al azaabi lu gën a ñaaw ci mbugal yu yusabbixuuna mu ngi doon rendi abnaakum seen doom yu góor yi waya wa yastaxyuuna muy bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen yi wa fi zaalikum nekk na ci leen eh, loole seen mbugal googu ak musal leen ci bala un loolu nattu la min rabbikum bu tukkee ci seen boroom azimun bu màgg la sax ngis nga balaa un léegi balaa ul sayyi'a ak balaa u xasana kaa rëndi gi ñu leen doon rëndi balaa u sayyi'a la musal gi ñu leen musal ci rëndi ga balaa ul xasana yàlla ne waskur na waskuru na ngeen fàttaliku is farax naa bi nga bi ma xam bi nga xamee ne teqale na bikum ci yéen albaxara géej gi bi leen Muusa dàqe yonent euh, bi leen Firawna dàqe Firawna dàq na Muusa Muusa ak bani Israil ba ñu ñëw ci géej gi ñu jaaxle ba wax inna la mudrikuun inna la mudrikuun danañ ñu dab fii rey ñu Muusa mu ngi wax ne kallaa innama innama i rabbi sa yahdin yàlla mu ngi ànd ak man dina ma jubal yàlla ne na ngeen fàttaliku loolu bi nga xamee ne dàq nañ leen ba ci tefes gi fa anjaynaakum ma daa isfara naa bikum bahar bi nga xamee ne teqale naa géej gi mu def ay pont ngeen jaar ci fa anjaynaakum ma musal leen wa aaxara naa ma labal aala firawna ñooñu firawna mooy seen noon yi wa antum yéen tanzuruuna bi may labal na ak ñoñam yi tanzuruuna yéen a ngi ci euh, tefes gi yéen a ngi ci ci kaw ci kee yi di seet ni may ni may alakee ñooñu firawn wa iswaat naa bi nga xamee ne daxal naa walla digal naa muusa yonent yàlla muusa arbaina leylatan mu woor ñeent fukki guddi su yooyu motee mu ñëw ma jox ko tawreet bi mu demee nag di jëli tawreet su ma topp taxastum ngeen jàpp al ijla yëkk wa yëpp yëkk wa xam ne Muusa Samiri moo ko defar sànni ci suuf soo xam ne fasu yonent ya euh, fasu Jibril bi muy ñëw di ko euh, rabetaaye moom dafa gis fas wi lépp loo xam ne teg na ci tànkam rek loolu dafay dund mu tibb ci suuf si moom la yoroon keroog bi mu defaree yëkk woo ba pare loolu la jël sànni ko ci yëkk wi rek yëkk yu commencé naññ te ba Moussa dem na gisee ji ak boromam mu ne leen Moussa lii mooy seen kii mooy seen yàlla mu dafa réer Moussa Moussa moom la wëri ñoom ñëpp walla ñu genn wàll gi ñu topp yëkk woo di ko jaamu moo tax yàlla ne wa waa adna bi ma joxe rendez-vous Moussa yonent yàlla musaa Moussa arbaina laylatan mo digal ko mu woor arba ina leyde tan euh, ñeen fukki guddi so mo toppi taxasu istaxadtum ngeen càpp al ijla yëkku wa min baadihi ginaawam wa antum yeen xaalimuuni yéen a tooñ yéen a tooñ ngeen a jàpp loo xam ne du yàlla ngeen def ko yàlla su ma afaw naa topp ñu jëggal ankum ci yéen min baadi xaalik ginaaw loolu laalakum ngir yéen tashkuruuna ngeen daal di sant xéewal yàlla aleykum ci yéen waa is naj aataynaa bi mu joxe muusa yonent yàlla muusa alkitaaba tawreet wal furqaana ak furqaan furqaan bi nag mooy at fu at fu at fu bayaanin mooy at fu wone ne al furqaan al faariqu bayna al xaqi wal batil wal xalaali wal haram laalakum ngir yéen tëhtëduuna ngeen jub min adalaala tukkee ci réer wa id qaala jamono ji nga xam ne wax na muusa yonent yàlla muusa li qawmihi ñeel nitam ñi mu ne leen yaa mi yéen samay nit innakum yéen kat zalamtum yéen a tooñ anfusakum seen bopp bittiqaasikumul ijla ngir jàpp gi ngeen jàpp yëkk yoo mu nekk seen yàlla na ngeen tuub ilaa baariikum jëm ci aji bind seen faqtulu na ngeen rey am anfusakum seen bopp yàlla nee leen balaa may nangu seen tuub da ngeen di reyante seen bopp ba pare ma soog a nangu tuub ga faqtulu anfusakum zaalikum seen loole mooy rey seen reyante seen bopp xayrun moo gën lakum ñeel leen inda baarikum fas seen eh, aji bind seen fataabu mu daldi nangu tuub aleykum ci yéen innahu moom yàlla huwa moom at tawwaabu mooy aji nangu tuub arrahim ki nga xam ne mooy yërëm jaamam waaye is qultum bi ngeen nekkee bi ngeen waxee yaa muusa yow muusa ñunkat kat lan nuumina laka duñ la gëm xataa narallaha jaharatan ba mbetee ñu gis yàlla jaharatan ci jàkkaar la bi ñuy waxee loolu fa axasathum daal di fa axas fa axasatkum daal di leen jàpp as saaiqatu mooy xaacu jibril wa antum yéen tanzuruuna yéen a ngi xool maa xàll bikum li wàccoon ci yéen mooy mbugal googu su may rab topp baasanaakum ma dëkkil leen min baadi mawtikum ginnaaw seen deega laalakum ngir yéen tashkuruuna ngeen sant xéewal yàlla aleykum ci yéen waa bani israel ñoo dé dëgër bopp juif yi ñoo dëgër bopp yàlla ne wa naa keral naa aleykum ci yéen alxamaama niir niir woo xam ne bi ngeen nekkee fii bërëb bi ñuy wax tiix bërëb bi ñuy wax tiix naaj wi tàng lool tàng lool bay seen yuur yi di waaj bax yàlla ne ma wàcce wenn niir tiim leen yàlla ne wa zàllal naa ma keral aleykum ci yéen alxamaama benn niir wa anzal naa ma wàcce aleykum ci yéen almann ñam la wa salwa mann ak salwa ñu ne leen waqul naa ñu daldi wax neen kulu lekk leen min tayibaati ci yu sell maa ci yi nga xam ne naa razaqnaakum wërsëgal naa leen ko waaye nag wala tadaxiru wala tudaxiru fa kafaru bu leen denc nag lekk leen rekk su ngeen suure ngeen bàyyi taabal di dem waaye bu leen denc wa ma zalamuna ñoom tooñu ñu de tooñu ñu ñu yàlla walakin li fi ne kaanu nekk nañu yazlimuuna di tooñ anfusahum seen bopp ndax dañ leen tere woon denc ñu commencé di denc wa iz qulnaa bi ñuy waxee lahum ñee leen baada xurujihim min a tiix bi nga xam ne génn nañ génn nañ tiix ñu leen leen udxulu dugg leen haadihi alqaryat bi lee dëkk na ngeen fa dugg mooy baytal muqaddas aw ariha am na ñuy wax baytal muqaddas la woon am na ñuy wax ne ariha la woon noonu la dëkk bi tuddoon fa kulu ngeen lekk minha ci dëkk bi hay si siitum lu ñu leen soob raxadan ci yaatu la xijra fii amul lu ñu leen tere wadxulu na ngeen dugg albaaba bunt ba sujjadan ngeen ngeen ngeen ngeen sujuud ngeen sujuud wa quulu ngeen wax xittatun xittatun yàlla na yàlla sippi suñu bàkkaar su ngeen ko defee naxfir lakum wàllu yuxfar lakum su la neexee ñu jéggal leen xataayaakum seen njuumte seen bakkaar wa sa naziidu dinañu dolli almuxsiniin way rafetal yi bi taati ci topp ñu rafetal ñu sa ñu ñu ñu jox leen sawaaban yool fa baddala daal di watti allazina gaa yi nga xam ne zalamu tooñ nañu minhum ci ñoom qawlan gayri lazi qiila lahum beneen wax ba xam ne du boobu lañ leen waxoon ñu wax ko xam lu ñu wax fa qaalu ñu wax fa qaalu ñu daal di wax xabbatun xabbatun pepp yàlla ñu yàlla jox pepp pepp fi shaar fi shaaratin wadxulu dëng yàlla ne fa anzal naa ñu wàccee ala lazina ci gaa yi nga xam ne zalamu tooñ nañu ba ñoom ñoo watti beneen kàddu gudul bi ñu leen waxoon ñu wàccee ci ñoom rijisan mbugal azaban bi ñuy wax taaun taaun waaw balaa bu ñuy wax taaun mu mel ne mbas mi rek mbas mi xew léegi waaw yàlla wàcce ko ci ñoom mu xaw leen jeexal mina samaay wàcce na mbas mina samaay bu tukkee ci asmaan bi maa ci sabab yi nga xam ne kaanu nekkoon nañu yafsuquuna ñoom ñoo génn topp wadkuruuna ngeen fàttaliku ba tey yonent yàlla muusa ak bani israil istasqa bi nga xamee ne baawlu na ba ñëw nañ ci yonent bi alayhi salaatu wa muusa alayhi salaatu wasalaam di ko ñaan mu ñaanal leen yàlla mu wàcce ci ñoom taw ndax bekkoor bi metti na mooy istis salaatul istisqa Moussa organisé julli goo xam ne julli baaw naan li xaw mi ñeel nitam ñi waqad at ichu fekk nag ñoom mar nañu fi tiix ci dëkk bi ñuy wax tiix fa qul naa ñu daldi wax Moussa idrib bi asaakal xajar jëlal sa yet wi nga dóor ko ci xeer ba fan fajarat خير بي بال فاجر فاجر دال دي بال من هو تي خير با اسنا عشرة عينا جول فك اك نيار سيوندي بو خامني موي داو قد علم خامنا كل اناس بيب خير مشربهم بيب غير مشربهم سين نان واي سوكو ديفه سيرير يي نان في توكلور يي نان في جولا يي اولوف يي بن بوتي اسنا عشر كي عينن yàlla ne kulu na ngeen lekk washrabu na ngeen re naan min risqillaahi ci xéewalu yàlla wala taasaw bu leen dox fil ardi ci suuf xaala kawnukum mufsidiin jumlatu xaala kawniya la mu ne xaala kawnukum mufsidiin ngeen di nekk waaye yàq ci kaw suuf wa qultum bi ngeen waxee ne jamono ji nga xam ne wax ngeen yaa Muusa yow Muusa lan nasbira ñun dee mënuñu muñ ala taamin waaxidin yàlla wàccee na leen xéewal yépp ñuy lekk jënduñu béyuñu góoruñu yettuñu ruujuñu soquñu defuñu dara xéewal yi dafay ñëw rekk ñuy lekk su ñuy dem ñu ne yaa Muusa yow lan nasbir ñun kat mënuñu mun mu ne dëkk ci ala taamin waahidin ci benn ñam rek ginaar rek ginaar rek guddeeg bëccëg ginaar munuñ ko muñ fadu lana rabbak ñaanal ñu suñu sa borom yuxrij lana mu gennel ñu shay'an mbir mo xamne mimma tumbitul ardu loo xam ne suufa koy saxal wat nañ ci mbey ño ba dol min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha nenañ baqaliha moy ñàmbe وقسائها موي برف وفومها اك نيبي وادسها اك توبل وادسها آه، آه، آه، اك لاج وبصلها اك صبله على كل حال يي تود ييب اي لك لا يو خامني دا فاي صاح تي سي سوف ليك ليك نك تور يي غا جاولي تور يي قال الله موسى نيل موسى نيلن atastabdiluuna allazi huwa adna ndax da di watti loo xam ne moo gën a yées liñ leen jox ginaar yoo xam ne dañoo ñor picc yoo xam ne dafay ñor ñu indi leen ko indi leen lem indi leen loo lépp loo xam ne dangeen koy jëfandikoo ngeen di ko lekk sonnu leen ngeen bëgg ñu indi leen loo xam ne balaa ngeen ci jot bay bay ba bëgg dee ruuj ba bëgg dee wattu tool yi ah loolu loolu moo gën a yées billesi ci li nga xam ne huwa moom ngeen wax ci billesi ci li nga xam ne huwa xayrun moo gën lakum ñeel leen yàlla d'accord na nee na ihbitu na ngeen wàcc misran ngéndi ci suuf fa inna lakum ñeel na leen maa li ngeen ñaan wa duribat sàdd nañu def nañu aleykum aleyhim ci ñoom adillatu toroxtaange wal maskanatu wal maskanatu ak ñàkk ba tey béykat yi soo leen gisee doonte sax mbéy mi neex na am nañu dugub am na lépp waaye soo leen gisee dégg leen di yéene sarax ndax toujours dañuy am jeexitu yooyu jeexitu mbéy béykat toujours lu mu am alal lu mu am alal soo gisee colaam ak léppam rek da nga xam ne béykat la waxuma nag nii nga xam ne dañu santaane mbéy yor ay machine ak i tracteur ak yooy ñooñ dañ leen di liggéeyal waaye ñi ñu nekk ci mbéy mi sa tool la walla euh, sa tool yaa koy béyal sa bopp walla yaa ci dëkk walla yaa ci ci ngay dund soo ko gisee rek ak ki nga xam ne dundee na leneen dañuy wute kon wa duribat alayhim dhillatu wal maskanatu wa baa u dellu nañu bi xadabin ci mer min allaahi bu tukkee ci yàlla ngir li ñu sàdd ci ñoom bi àndam ñoom kafa kaanu nekkoon nañu yakfuruuna ñu weddi bi aayaatillaahi ci aay yàlla wa yaqtuluuna ñooy rey annabiyiina ay yonent ñoo rey zakariya ñoo rey yaxya ñoom bani israil yi ñu bon lañ bi xayril xaq ci lu dul dëgg tooñ leen rey leen daalika loolu rey googu nag bi ma asaw wala euh, euh, zalik li ñu sàdd ci ñoom li ñuy def ci ñoom bi ma asaw ci sabab bi nga xam ne asaw moy na wakkaanu asaw mooy nañu wakkaanu nekk nañu yaataduuna ñoom ñoo dégg jéggi dayoo ci ay bakkaar inna lazina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu bil anbiya ci yonent yi min qablu jëkk wallazina ak gaa yi nga xam ne xaadu nekk nañu yahuud wa nasaara ak nasaara wa saabiina ak benn kuréel goo xam ne bu nekk ci diggante yahud ak nasaara yi ñu ne leen protestant man aman képp koo xam ne gëm na minhum ci ñoom billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés pénc fi zamani nabiyina ci suñu jamono yonente alayhi salaatu wasalaam wa amila mu jëf saalihan yiw bi yi mu jëfee sariya yonent bi salaa sallam fa lahum ñeel na leen ajuruhum seen pay mooy seen payu seen jëf inda rabbihim tukkee seen boroom bi rabbihim fa seen boroom wala xaw déet ragal aleyhim ci ñoom wala hum déet ñoom yaxzanuuna ñuy jàq yowmal qiyaamati waskur na nga fàttaliku id axas naa bi ñu jàppee misaaqakum seen kóllëre fi tawreeti ci tawreet wax awa rafa naa ñu daldi di yëkkati fawqakum seen kaw ak tuura doj ñu ne leen xusu jàpp leen maa naa aataynaakum liñ leen jox bi quwatin ci kattan waskuru na ngeen fàttaliku maa fii li ci nekkoon minal bil amali ci jëf bihi laalukum ngir yéen tattaquuna ngeen ragal annaara safal awil maasi walla ngeen ragal mooy su ma topp tawallaytum ngeen dumóoyu min baadi zaalik ginnaaw lool ginnaaw kóllër gi ani taati ci topp yàlla falaw laa fadlullaahi bu dul woon bu dul woon ngéneel yàlla aleykum ci yeen wa rahmatuhu ak yërmandam lakum ñeel yéen bi tawbati ci tuubal euh, nangu tuub ci yéen aw taaxiral azabi wàlla mu yéexe mbugal la la kuntum da ngeen nekk min alxaasiriin di way perte way alku wala qad alimtum xam ngeen allazina gaa yi nga xam ne itadaw jéggi nañu dayo minkum ci yéen fi sabti ci samedi ga dañ leen tere woon ñu nappi samedi ñu dem nappi samedi fokkul naa ñu daal di wax lahum ñee leen kuunu nekk leen xirdatan ay golo yoo xam ne xaashiina way perte lañu kon su ko defee ngeen teg fa seen baaraam ba ëllëg incha allah ñu euh, sof ci li ñu sosoon euh, di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq defal ñu wér defal ñu xéewal nangul ñu suñu jaamu weeru koor gi yàlla nañ ci yàlla defal xéewal defal ñu ti tawfiq yàlla nañ yàlla nangul suñu naafila suñuy koor suñu jaamu yàlla yépp yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla na yàlla nañu yàlla dàqal fi feebar bi ba ñu ñu delluwaat ci suñu juma yi ak suñu jàkk yi ak suñu activité yàlla nañ ko yàlla def wa ma zalik bi alallahi aziz السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته